bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibaadihi allazina stafa nabina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu uh, maa ngi nuyu beneen yoon mbokk yi uh, di leen di ziyaar di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu sàmm ñu uh, jubal ñu defal ñu lépp luy am njubam taxal ñu ci jàngaleem yonent bi alayhi salaatu wasalaam topp ko ci jëf ak ci wax yaa rab jéggal ñu lépp luñ ju ci wax mbaa ci jëf ci sakki xalaat incha allah tey jii ñu fas yéene àndaat ak al ustaaz Alfahim ci thème nga xam ne ni mu ngi ci doon ñëw mu aajo woon ci wàllu lii di exagère wala ñu ne saara wala xabaaba nga xam ne ni moo ngi faral di am ci ci ci lii di yoonu murit cheikh bi commencé woon ci keroog ñëwoon ci ay adil la muy cosaanul mbir yooyu mu am leen lu mu woon ci ay mbind dëkkandiko ci mu nekk mbind ñu ñu xam ak yu ñu xam tamit ñu bari miin leen lool tey ji mu fas yéene continuer ci loolu yeggale ko ñaanal ko yàlla mu defal ko ak ubbe barkeel ko yokk xam-xamam te barkeel ñu may ñu xam-xam bu ñuy jëriñ ñu ci lim ñu xamal yaa rabbal alamin ñoo ngi gërëm ñëpp sallallahu nabina Muhammad salaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin nabiyina wa xabibina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala mee ñu tawfiqu aduna ak alaxira di dolli di sant mbokk yi nga xamante ni ñoom ñooy taxaw ngir jàllale séminaire yu mel nii di ci sonn di ci def seeni temps ak seeni yitte yàlla borom bi subhaanahu wa taala taxaw leen te fay leen ngeen di fay niki noonu machaayix yi nga xamante ni ñoom ko taxawee cheikh fadel cheikh mohamad di ñaan yàlla subhaanahu wa taala aar leen te sàmm leen te musal leen ci bépp ay ak bépp pexew pexeb noonu di ñaanal suñu machaayix yi machaayix ahlu sunna yëpp yàlla borom bi subhaanahu wa taala sàmm leen te aar leen te musal leen ci li nga xamante ni moom mooy pexe noonu euh, ñu dellu siwaat ci suñu mbind muy xaatimatu munaajaat yi ci lu ñu cërale mooy ci yenn ëppal yi nga xam ni dafa am ci yoon wi téere bi nag téere la boo xam ni lu tax ñu tànn ko ndax li ngay dégg yëpp comme niñ ko waxee diw mooy yàlla ay ëppal ci yoon bi yëpp ci ko dégg ku ne léeg nga dégg ku ne diw mooy yàlla léeg nga dégg ku ne diw moo sut yonente yi wala sëriñ bi du moroomu malaaka yi moo raw malaaka yi moo leen sut wala sëriñ yi moo raw saxaaba yi wala yowmal qiyaam bu yàlla taxawee ne yonente bi taxaw ne sëriñ bi taxaw ne ma bu leen dem ci sëriñ bi wala sëriñ bi du nit comme ni nga koy déggee wala man jarul may dem màkka ma demee dëkk ba ca bawar rek doy na loolu yëpp ña koy wax fii lañ ko wékk téere bii lañ ko wékk téere lañ ko tànn ñun nag la mu wax ci téere bi loolu rek la ñuy firi loolu rek la firi luñ ci dolli mooy dañ koy tontu selon alquran ak sunna leeral ko indi lu wër ci alquran ak sunna koo xam ne tamit gis na ni waxul loolu wala dañ koo sosal na ñëw rek nañu ni ngeen ko firee fii du nii nee la wala mu daal di ñuy tontu ci xam-xam amaa yenn yi moom duñ ko gis ku pare pour tontu ci ci xam-xam rek bismillah cheikh bi moom muy wax mu continuer di wax ci ñaari page yi ñu wàccee mu ne tursi anil mawti baqaullahi abqaani llahu li wajhillahi mu ne borom bi fegal na ma aw dee daf fegal dee comme mu ngi ci logique yi moom du dee maanaam ci logique boobu la nekk ba tey mu ne moom du dee mu ne dàq na ci man dee comme boo xoolee lii da koo répété répété waat ko répété waat ko répété waat mooy mu wax fële ci bayti yee lam yanxu zaati wala fu mu waxee mu ne ah, naxan nufuusa siwaaya maanaam dee jublu na bakkani ba mu des moom comme loolu lay ñëwaat rek di dëggal di firndeel comme ñenn ñi nga xam ne dañ koy layalee naan non mindam la wax loolu moom yaakaar naa ni ku gëstu woon bu ñu gëstoo bu baax mind yi rek dañ ko xam ndax dafa taakid da koo gën a dëgëral waxu ko benn yoon de mais da koy gën a da koy répété di ko répété te bayti yi jàll nu fuusa la wax mu leer muy ay bakkan te nee nañ leen ci arab amul kenn ku namm ay mbind wax bakkan loolu amul ci làkk arab loolu soo leen ko waxee rek mooy dangeen ngeen ne jiiñ seen sëriñ déggul arab te munul wax ndax amul kenn ku mun wax koo xam ne mën na wax waxam leer mu dégg arab bëgg wax samay mbind du dee mu utiliser nafs nufuus déedéet loolu leeral lañ ko dars bi jàll mu koy dëgëral mu ne tursi anil mawti baqaullahi abqaanillaahu li wajhillaahi dee moom yàlla daf ma koo fegal waaw fekk yàllaa ngi des daf ma koo fegal yàlla moo ma desloo ngir jëmmi yàlla abqaanillaahu li wajhillaahi mu ne kafaanil baaqil mamaata sarmada mu ne fexel na ma te tëyal na ma ab dee ba sax dàq ba sax dàq ba abada sarmada lii leer ba day mu ngi ci logique moom du dee mu ngi ci logique mu ngi ci logique boobu ma mamata sarmada ragal na ma aw du ma dee abadan naam mu ne wabi baqaayi yasurru ahmada ci des bi may des sax bañ a dee kii di muhammad ahmada moom loolu da ciy bëgg ci da ciy kontaan da lu njëkk mooy daq bu mu dàq ni du dee ci bayti yi loolu leeral nañ ko ci dars bii passé dafa wuuteeg alquran ak sunna te alquran la ñuy gëm weddi lu wuuteeg alquran ak sunna yàlla nee na kullu nafsin zaiqatul mawti bépp bakkan day faatu amul kenn kuy des yàlla gën ko leeral mu ne aynama takunu yudrikumul mawt walaw kuntum fi burujin mushayyada daa boo leen mënta nekk dee da leen di dab doote da ngeen nekk ci ay pale yoo xam ne ci kaw asamaan lañ ko tabax yàlla waxaan ne kullu man alayha faan képp ku nekk ci kaw suuf da ngay faatu wa yabqa wajhu rabbika sa borom kese mooy def comme yàlla ci moom kese la ko def ni du dee ba léegi mu ngi ci logique boobu logique moom du dee mu ne wabi baqaa'i yasurru ahmada des bañ a dee boobu yonente bi da ciy kontaan laa laa yonente bi du kontaan ci loo xam ne dafa wuuteeg alquran ak sunna yonente bi du kontaan ci lu wuuteeg daawut ak alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam na ni ñëpp dañuy dee parce que loolu la alquran indi loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firi moo tax yàlla mu ne afa im mitta fa humul xaalidun ndax yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo faatoo ñoom dinañ des ndax yow boo faatoo est ce que am na kuy des sa ginnaaw ku dul faatu lii alquran la alquran la bu leer naam mu continuer mu ne nafaani walam yadurruni daf may jëriñ rek te loru ma moom yàlla loru ma wala yadurruni kulli alayhi awwala te du ma lor ndax lépp ci moom laa ko delloo mu ne nafaani te du ma lor laa shakk ni loru na comme niñ ko waxee mooy euh, noon yi euh, maanaam sonal nañ ko sonal nañ ko luy tolloog ay fanweer ak lu teg la chèque di loolu lor la mu ne walaa yadurru nii du ma lor kulli alayhi awala sama lépp ci moom laa ko delloo li moom tawxid la sama lépp moom laa ko delloo lii tawxid la waaye nag la ko jiitu moom allahul mustaan mu ne tursi anil amradi wal mama gis nga mu ne fegal na ma feebar ak dee gis nga mu ngi répété dee rek mu ngi répété moom dee moom du ko def comme fii gën na leer muy taakiin ne moom du dee ko almaadi wal mamaat gis nga dafa ne fegal na ma feebar ak dee gis nga te xam nañ ni feebar nit buy dee la plus plupart ci feebar lay jaar nit buy nit buy dee la plupart day jaar ci feebar doog a dee moo tax gis nga moom dafa jokkale ñaari mu ne tursi anil amraadi wal mamaati fegal na ma li nga xamante ni moom mooy feebar aw ak dee ak dee maanaam du ma dee comme lii lii leer comme ba tey mu ngi ci logique boobu comme lu koy tontu nii du dee moom mooy aay yi nga xam ne wax nañ ko ni wax nañ ko ci luy dëggal ni ku nekk day luy leer leeral ni ku nekk loolu tamit dafa wuuteeg li nga xam ne moom mooy taxi yi boroom xam-xam yi nee nañu képp kuy dund dundam bi laa chàkk na ci feebar ndox ay adilla yu leer la moo ñëw ci alquran ak sunna bokk na ci lu ñëw ci alquran yonent salaa sallam ibnu abbas nee na ixtajama nabi salaa sallam wa huwa muhrim yonent salaa sallam dafa gàjju dafa gàjju fekk dafa feebar fekk fekk dafa armal fekk mu ngi ci aj te gàjju duñ ko def lu dul ci génnee deret boo xam ni feebar la dereet bu feebar bu nekk ci biir yaram te loolu ñëpp ko am te loolu médecins yi ñëpp ko saxal ñëpp ko sax naam amul benn nit buy dund lu dul dina feebar ñaareel bi luy wone ni doomu aadama du mun a mucc ci feebar moom mooy li nga xamante ni moom mooy ahadis yu ñëw di wane ni nit ki na faju di wane nit ki na faju bokk na ci waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xadisu abi hurayra xadis bi nga xam ne buxaari génnee na ko mu ne maa anzala allahu daan illa anzala lahu shifa yàlla du wàccee ab feebar lu dul da ko wàcceel lu koy faj yàlla du wàccee ab feebar lu dul da ko wàccee lu ko dafa wàccee lu koy saafara xadisu abi hurayra xadis buxaari beneen mooy xadisu jabir euh, jaabir mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam nee na euh, li kulli daa in dawa fa iza usiba euh, dawaun adda bari a bi iznillah xadis muslim mu ne bépp jàngoro daa am lu koy faj luy faj nag bu fekkee dafa laale ak feebar bi day wër ci kàttanu yàlla beneen bi yonent sallallahu alayhi wax wax mu ne fil jannati fi habati sawda shifaun li kulli illa saam mu ne habatu sawda kat day faj day faj bépp lor bépp feebar ba mu des feebaru dee habatu sawda day faj bépp feebar bépp feebar ba mu des feebaru dee comme yenn boroom xam-xam yi nee nañ yi wala xadiis nga xam ne day digg day diggal nit ñi ñu faju comme xadis yooyu dafa làmboo ni la shakka doomu aadama mënul dundute du lamboo ak feebar yeneen mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit digle yu mu digle mocc te mocc duñ ko def lu dul feebar mocc duñ ko defal lu dul ku feebar naam yonent bi sallallahu alayhi wasallam xadisu awf ibnu malik mu ne kunna narqi fi ljahiliya fa qulna ya rasulallah kayfa tara dhalika fa qaala fa qaala irudu an alayya ruqaakum la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi shirk mu ne dañ daan mocc ci jahiliya jamonoy jahiliya ñu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam noo gisee mocc ñu mocc waxal leen ma seeni mocc wax leen ma seeni mocc lan la loo leen di wax mu ne amul problème ngeen mocc bu fekkee amul ay kàddu shirk ndax jamonoy jaahiliya seen mocc yi tudd ay turu seytaan mu bu fekkee mocc bi amul kàddu shirk yàlla ngeen ci yàlla ci woo ci moom ngeen di dellu loolu lu la comme mocc duñ defal lu ku feebar ah, beneen bi mooy tamit yonent bi sallallahu wasallam dafay muslu ci feebar dafay muslu ci feebar ci xadis mu ne inni auzu bika min al barasi yàlla borom bi subhaanahu wa taala maa ngi lay ñaan musal ma ci feebar mu tudd yi yëpp ay xeetu ay xeetu feebar la xadis uh, ibnu xibbaan ak alxaakim wa kadalika abu nuaym muy xadis bu wër borom xam-xam ne nangu comme salaa sallam bu joxee ñaan muslu ci feebar la chakka ni xam ne feebar parce que day dal doomu aadama bu nekk beneen bi mooy yonente yi sax feebar nañ yonente yi feebar nañ te saxal nañ ni saxal na saxal nañ seen làmmiñ sax na ci seen làmmiñ ni ñoom dañuy feebar lu si njëkk ci loolu yàlla borom bi subhaanahu wa mu ngi nettali jële ci ibrahim bokk na eh, bokk na ci ay ñaanu ibrahim wala ay waxu ibrahim walladi yut'imuni wa yasqiin wa ida maridtu fa huwa yashfiin yàlla bi nga xam ni moo ma lelal moo ma nàndal su ma feebaree moo may faj su feebaree moo may faj beneen bi mooy ayub ab yonente yàlla la feebar dal na ko ayub yonente yàlla la feebar feebar dal na ko mu ne wa ayuba isnaada rabbahu anni massaniya dur wa anta arhamu rahimin mu ne ayub dafa woo borom bi mu ne sama borom man de feebar naa te yow yaay borom yërmande bu yaatu bi ñëw ci xadis ni moom ayub

saxaaba yi ñoo koy lëng saxaaba yi ñoo ko doon lëng comme ci lii dalil la buy wane ni nit ku nekk day feebar te beneen bi mooy réalité wone na ni réalité wane na ni képp ku dund di nga feebar ginnaaw addilla yi ci aaya ak alquran réalité daf réalité moo ñëw dëggal loolu dund da feebar beneen bi mooy moom sëriñ bi ña bokk ci yoon bi ñoo nettali ni feebaru peste moo ko rey feebaru peste moo ko rey comme la chaque ni euh, feebar na naam euh, mu continuer muy dem mu ne euh, tursi anil amradi wal mamat fegal na ma feebar ak ak ak dee mu ne baqaa baqaa'u aasi mu ne mu ne baqaa'u aasimi min alchamma man de damay des di mucc ci ay ay ŋàññi ak i xas man kenn du ma ŋàññi kenn du ma xas kenn du ma ŋàññi kenn du ma xas loolu moom dañuy bàyyi gars yi rek ñu àtte ñuy déglu ñu àtte comme lépp euh, tagg sa bopp la rek man la man la man la parce que ay déewante la ay déewante la dañuy ñëw seen nopp di leen wax ñoom bu ñu yeewoo ñu jiiñ ko yàlla du ñu jéem xool ba xam jinne la wala lan la lu ci bëri jinne la parce que day wuuteeg alquran ak sunna euh, ndax ñoom dañ daan jàng xam-xam yu ñuul dañoo amoon xam yu ñuul yoo xam dañ koy jàng xam-xam bu ñuul doo ko jàng lu da ngay jëfandikoo ay jinne bi عني بقوله إلي البيت رافعا بيل مرضيا لا شك في كوني bi فيه وبالكتاب وبالأمين mu ne yàlla xamal na ma maanaam ci luñ ko dee noonu mu jàpp ni yàlla la mu ne dee nañ ko ne ko day wommat da koy wommat jëmale ko ci moom da koy wommat indi ko ci moom maanaam day xëcc indi ci moom day ñoddi indi ci moom lan lay ñoddi indi ci moom mu ne albayta raafi an biyal mardiya albayta moom mooy kaaba gi raafi an da koo yëkkati biyal mardiya te daf mooy gërëm mun na am kaaba gi la namm da koy gërëm mun na am borom bi la namm da koy gërëm am na ñenn seen firikat yi ñu ne ak murit yu mu gërëm ak murit yi nga xam ne dañ koo gëm da leen di gërëm naam comme fii nii moom cheikh bi comme nee na néegu yàlla bi di kaaba gi allamani bi qawdihi ilayya yàlla da ko xabal ne ko da koy wommat indi ko ci moom jëlee ko màkka indi ko ci moom comme fii leer na dafa ne ci moom am na ñoo xam ne nee nañ déedéet waxul ni day jël gi yóbbu ko dëkk ba waaye benn garab la ba ca aljanna kuy wax benn garab ba ca aljanna kaaba bu ñu yóbbu garab ba ca aljanna dina wax ilayya ci man comme fii waxul kaaba ba ca aljanna waxul garab ba ca aljanna dafa ne ilayya ci man ilayya xëy na darura shi'riya bi moo tax mu yokk alif muy ilayya mais dafa ne allamani bi qawdi bihi ilayya xamal na ma ñoddi bu muy ñoddi kaaba gi indi bu muy indi kaaba gi ci man albayta raafi an biyal mardiya mu ne laa shakka fii kawni bil amini kaaba gi maa ngi ci ak yonente bi wa bil kitaabi ak alquran wala amini ak jibril wala aminu bu njëkk bi mun na nekk jibril euh, ñaareelu amin bi nekk yonente bi mu ne yàlla yëkkati na wamman na kaaba gi indi ko ci man fa ma nekk biir kaaba gi maa ngi ci man ak jibril ak téere bi ak téere bi di alquran lii nga xamante ni moom mooy moom mooy yonente bi sallallahu ñu taxaw fii nee kaaba gi lañu indi ci moom alquran lu ñu xamal ni mooy kaaba gi màkka la ne alquran loolu la ñu jàngal alquran loolu la ñu xamal te loolu mooy li nga xamante ni tamit wax dëgg fa yàlla moom la ñuy gëm te amuñu benn preuve ci histoire buy wane kaaba gi euh, tuxu na dem ci moom yàlla boroom bi subhaanahu wa taala wax na ci alquran mu ne inna awwala baytin wudia linnaasi lalladi bi bakkata mubaarakan wa hudan lil aalamin néeg bii di gi ñu tegal nit ñi pour ñu fay jublu mu ne mooy bu nekk màkk mooy bu nekk ma màkk mu nekk lu barkeel mu nekk lu barkeel tey moom nee na kaaba gi dañ koo toxal indi ko ci moom lu njëkk mooy amul fenn fu ñu bindee ci histoire màkka saoudien yi bind ni kaaba gi am na benn jamono wala benn moment boo xam ni gisatuñu Kaaba loolu amul histoire saoudien yi amul ko bind foofu ñaareel bi tamit ci histoire Sénégal amul benn yoon bu ñu bind ni Kaaba gi kat ba nekkoon màkk mus nañ ko gis bawol gis nañ ko bawol loolu benn la ñaareel bi bu fekkee Kaaba gi bi nga xam ne moom la yàlla def ne nit ñi fa la ñuy jublu nañ fa jublu mu nekk lu leer am benn jamono Kaaba gi tuxu léegi jamono jooju ña daan julli fan la ñuy jublu comme yàlla dafa bëgg a wax ni yàlla njuuy na leen yàlla mi leen jublu leen ci Kaaba gi léegi ñoom ñu ngi julli jublu ci Kaaba gi waaye Kaaba gi newu fa Kaaba gi déplacé woon ñooñu fan la ñuy julli fan la ñuy jublu yàlla borom leen du contradiction yàlla du naxe yàlla du wax waxeet yàlla du njuuj déedéet yàlla bu waxee waxam benn la waadallahi xaqa wa man asdaqu min allahi haditha wa man asdaqu min allahi qiila amul a dëggu wax bu yàlla wax leen kaaba gi jublu leen kaaba gi benn jamono mu yóbbu ko feneen te nit ñi jamono bu ne dañuy julli léeg-léeg am ko ne la déedéet kaaba gi ba muy dem boobu nekkul jamono yi waxtu julli ñu ne leen déedéet amul benn jamono amul benn jamono lu dul ni am na ñuy julli loolu mënul nekk ku julliwul tiisubaar Sénégal amaana sa tiisubaar yow Sénégal julli nga ko pare yow julli nga sa gee ba pare mais amaana Japon ñoom julleeguñu gee wala julleeguñu tiisubaar wala julleeguñu tàkkusaan amaana Indonésie ñoom ñu tàkkusaan julleeguñu timis wala julleeguñu gee comme amul benn waxtu lu dul amul benn waxtu waxtu lu dul am na ñuy jublu ci kaaba gi di julli bu dul farata di naafila wala qiyaamul layli jug guddi di julli te farata ak naafila yépp booy julli kaaba ngay jug comme nee na comme jamono jooju laaj bi mooy kaaba gi euh, bu déplacé woo ña daan julli ñoom fan la ñuy jublu tey comme loolu euh, warul saxul ci alquran saxul ci sunna réalité aussi wanewu ko amul léena nag la di dese mooy ñëw kaaba gi indi buñ ko indi ci moom baatin la baatin la mënoo leen koo comprendre kaaba gaa ngi màkka mais ñëw na baatin ñëw na baatin maa lu ñëw du kaaba gi la ñëw du kaaba gi <laughs> bu fekkee kaaba gi kay ñu ngi koy gis déplacé wul ngeen na ñëw na bâtiment comme la ñëw ci yéen wala la ñëw ci sëriñ bi non du kaaba gi xool leen leneen mais du moom comme da ngay gis ni wax yi wax dëgg fa yàlla xel sax da koy dàq wax waxuma la ak xel da koy dàq waxuma la ak li nga xamante ni moom mooy moom mooy tegal lañu yàlla musal wallahu mustaan mu ne malakani l aminu wal aminu kitaaba baaqin jaani taaminu mu ne daf maa moomale al aminu mooy jibril wal aminu mooy yonente bi kitaaba baaqin jaani taaminu téere alquran téere buy des boo xam ni daf ma ci dama ci am sé sécurité daf ma indil ab taamin moom mooy moom mooy kóolute mu ne xaatimatu munaajaat yi lii mooy sama déewante bu mujj bil xatti haada ci yi rëdd wala yi bind alxatt jaalani allahu tabaraka wa Euh, def na ma euh, walla mu def ma abdullahi euh, moom mooy jaamam wa xalilan ak soppeem wa xabiban lahu wa xalilan alxalil moom mooy soppe boo xam ne moo gën a foor te fii erreur la waayo xalil mooy waayo wa ab waay te lii sunna da koo dàq yonent bi salaa sallam nee na law kuntu muttaxidan xalilan attaxastu ibrahima xalila walakin saaxibukum xalilullah yonent bi salaa sallam moom mooy waayu yàlla ak yonent yàlla ibrahima waaye saxul ci keneen ni moom waayu yàlla wa zahiran ci zahir wa batin ak batin wa jaaran wa jaaran ak dëkkandoowam lahu waaw àndandoo wala dëkkandoowam la shakk lii tamit njuumte la yàlla amul kenn amul dëkkandoo yàlla amul dëkkandoo même bu fekkee da cee namm ni sax dafa jege yàlla wala yooyu déedéet baat bi kenn du ko utiliser ci yàlla ndax yàlla fa mu nekk kenn du fa àgg sabbixisma rabbikal aala sabbaalal sa turu borom bu kawe bi ñu ne moo gën a kawe lépp mu nga ca kaw juróom-ñaareelu asamaan ca kaw arash foo xam ni amul kenn ku fa am accès bay di dëkk ak moom mu ne waxat yi man mu nekk kuy liggéeyal ar rasulu sallallahu alayhi taala wa sallam wallahu ala ma naqulu wakil comme fii la bayt yi jeexe fii la bayt yi jeexe fii la bayt yi jeexe euh, ci yu mu wax ni ci lii ci nusxa bi ci nusxa bi maanaam ci euh, copie bii ñu yor mais nag na beneen copie boo xam ni tamit am na lu mu ci dolli dinañ ko xool bu fekkee am nañ ko ñu indi ko loolu amul ñu àggali tamit am na lu mu indi ci mbind nekkul ci way waaye am na xaatimatu munaajaat yi boo xam ne ci mbind la am dañ ko bind nekkul ay way foofu tamit am na yeneen wax yu mu fa wax comme euh, jotaay bii di ñëw loolu la ñuy àggali ñu fàttali ni wax bu mu wax tamit du dee mu répété ko répété ko luñ ciy dolli mooy nañ ñu wax euh, kañu suul te dëkk ba kan la te nit ñi di dem ka nit ñi di dem di ziyaar kooku kan la bàmmeel ba ka fa tëdd kan la wallahu aalam wa salli allahuma wa sallim wa barik ala nabina muhammad